ay wa ay ay yaay ay lay lay li laa wuy wuy lay lay lay lay li laa jërëjëf <laughs> voilà merci waay fecculoo ngeen ma ni rek xale yi ah yàqu ma de jërëjëf super waay jërëjëf ni nga dugg see waaw wax dëgg yàlla super neex na ma. jërëjëf. waaye mbokk yi ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci nant bi tey nag dañoo am gan gan goo xamante ni nii bëggun biir réew mi bitim réew mi ku dee déglu kii nga xamante ni nii moom lañu invité monsieur le super maa ngi lay maa ngi lay fay vraiment content ci invitation bi. Mhm. ma nekk nit koo xam ne aw ma problème. dëgg la foo ma làmb rek mën naa fa. wax dëgg yàlla foo ko làmb fekk ko fa mais li ñu gën a neex ci moom xam-xamam. non seulement di un non seulement d'un écrivain di koo xamante ni nii wax dëgg yàlla xam-xamam wax dëgg yàlla biir réew mi ak bitim réew mi ñëpp rafetlu na ko monsieur le per waaye. ñoom ñàngat boo xamante ni nag bëgg nañ faa taxaw seetlu xale yi nga xamante ni nii noonu ni ci biir kër yi. waaw. ñu gën koo xamee ci cumbur gole yi. waaw xale ndaw yi. waaw wax dëgg yàlla xale boo ci toogal dala lay wax problème mu couvre-feu bi. que non seulement programme programme est-ce que Macky Sall am na benn programme boo xamante ni prépare na ko pour ñoom. waaw mais xam nga yéen seen télé bi def ngeen salle des profs. waaw initiative boo xam ne vraiment ñu ngi koy rafetlu. dëgg la parce que dina jël occupation ci élèves yi nga xam ne heure boo dañu doon nekk di taxawaalu. Mhm. mais y' a un problème. nga ce problème y' a un problème ah. mooy les enfants yi am entre sept ak six jàpp sept huit ans. yi mhm. am ba jàpp huit neuf ans. neuf ans muy euh, góor ak jigéen. dëgg la. Euh, yow père de famille man père de famille la quand je quitte chez moi. ma ñibbi sama kër. xale yi li ñu njëkk wax papa mbaa do mbaa couvre-feu bi du du ñu kii euh, noo defee couvre-feu bi ay xale yu ndaw yoo xam ne amaguñu expérience di commencer di tiit si si cause ay couvre-feu la di commencer di euh, timis di génn di gis ay policiers mhm. si cause boobu nga xam ne moo am ak affaire liif yi nga xam ne moom la ñuy wax mhm. loolu waroon nañ ko xool nu ñu koy gérer ba nga xam ne occupation xale yi du nekk ci li nga xam ne mooy fitna bi ñuy dégg ci occupation wu couvre ak liif ak doore parce que si cause la boo xam ne bu ñu ko rafetulul occupé wuñu xale yi mhm. mën na def ay cicatrices yoo xam ne ay séquelles année prochaine bi nga xam ne mooy comportement xale yi vis-à-vis ni parents yi di dundee xale yi mhm. bon donc le programme mooy fexe ba xale yooyu occupé leen mhm. parce que jël nañu daara yi ndongo daara yi yóbbu leen fi ñu bàyyee ko dëgg la ñooñu jël leen yóbbu leen seen i ay kër mais ñun suñu ay njaboot yi nga xam ne dañ leen di bàyyi kër ga. Mhm. et suñu soxna yi mënuñu leen gérer de toute façon de toute manière. Mhm. il faut ñu am loo xam ne moom lañ leen di occuper ba nga xam ne dootuñu am psychose yooyu. la c'est ça. alhamdulilah rabbil alamin premier tome boobu monsieur le super indi na ci ay tegtal waaye monsieur le super du ñu yem foofu coow lii nga xamante ni nii actuellement mu lëmbe jamono rawatina nag Sénégal gii nu ne. ku ne xam na ni mbas mi daan nekk ci biir réew mi bitim réew mi dëkk yëpp di waxtaanee jàngoro ji nu ñuy def ba faj kook lu ñuy def ba dindi kook lu ñuy def ba jóge fi waaye Sénégal rek dañu seetlu ni guddi yi nu toll saa nu wax waxi jàngoro waxi ceeb la ñuy wax lu waral loolu. amee ah, mais loolu c'est une défaite. nga ni parce que défaite la. parce que oui. est-ce que xam nga ne semaine bi yëpp Sénégal moo nekk à l'actualité de toutes les télévisions du monde. parce que nee bi nga xam ne mu ngi guérir ay ay nit di leen faj. Mm-hmm. parce que nañu waxante dëgg. y' a de cent guéris. cent guéris. on est en train de gérer nos décès. ci ñaar yooyu yàlla fa yem. amiin waay. Sénégal nekk référence. waaye des na dañu waroon xëy tey di wax ne nan nañu mën a def ba ka communautaire yi. ak cas yi nga xam ne xamuñu fu ñu nekk ñu gérer leen. mais waruñu woon taal tey télé wala rajo di dégg ay problème ceeb. ay problème ceeb surtout. qu'est-ce que ça veut dire ça ceeb. ceeb nag boo ko déggee monsieur le mooy lii nga xamante ni nii Sénégal bi di ko utiliser. waaw mooy lan nga xamante ni nii. non mais xam naa ceeb mais lan mooy coowu yeewu suba teel au lieu ñu ne ñu enfin gis nañu vaccin wala enfin Sénégal amatuñu cas communautaire wala enfin Sénégal les cas bi yëpp macha allah fii ak une semaine ci natt ñëpp dinañ rentrer chez mais ñu yeewu naa ñu ceeb bi kii nañ ko waroon jox waruñu ko jox kële téere ko gagné marchand ambulant ko gagné jaaykatu laafu ginaar ko gagné ah, que ça veut dire cela. il faut que le président de la république monsieur Macky Sall prend les devants des choses yooyu yaa ñu laaj ñu jox la li nga xam ne mooy ordonnance d'habilitation da da da habilitation maanaam jox nañ ko feu vert mooy buur mooy bumi mhm. mooy actuellement nii moom mooy euh, buur ci fépp mhm. kon moom ci boppam moo war a jël yatam taxaw mhm. séddale bi mu jaarale ko ci jaar bu jaar yoon dëgg la 4 avril ban heure lay commencé défilé wax dëgg yàlla huit heures huit heures ban heure lay jeex midi ñaata kaaru camion militaire ñoo lay romb di défilé. kenn xam nu mu toll. mais pourquoi l'armée ñu jox leen ñu jël li nga xam ne mooy ceeb bi transport bi mu nekk transport gratuit. gratuit surtout. jërëjëf ceebu waalo. ceebu waalo anam. bu ñu mënul jël profiter ci ceebu waalo bi nga xam ne am na ay réserve yu des ñu génn ko promouvoir ko. Mhm. première chose. Première deuxième chose. il faut promouvoir les céréales locales. les céréales bi laay mos lu mel ne cere. cere. lu mel ne cere mais boo ko bëggee jël ay pat ay pat ay ceeb yaa ngi indiwaat ak jàngoro yaa ngi faj jàngoro ci jàngoro parce que yooyu ngay joxe élément l'huile mm-hmm. la pâte la pâte le riz dafay indi diabète mm-hmm. te ba pare yow yaa ñuy indi beneen problème les sénégalais war xool day résoudre mais waroon wax ci affaire lan mooy faj. jàngoro ji jàngoro bi nga ñuy indil ay problème mu ceeb bi kii nañ ko waroon jox waroon ko jox kële ñi naan ñun nañ ko jox ñu ñoo ko waroon transporter te am ñu taxaw mun nañ ko transporter gratuitement. nga ni ah oui. monsieur Désespère yaa ngi wax loo xamante ni nii xoolal baax li ngay wax. mais l'armée peut transporter ça gratuitement. gratuitement parce que c'est notre armée non. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah 8 heures du matin la la camion yi di romb ba 9 heures. ba 9 heures ba midi. midi ba 10 heures. Mhm. ay nit ñoo ci dëgg la mais pourquoi pas ñu jox ko arme ñu daal koy jël yóbbu ko. dëgg la kan moo war a gagné ceeb bi kan moo war a transporter la ceeb. surtout. où sont nos ba ba nos nos braves. Mhm. opérateurs économiques. ok ñi fi nekk. ñoo xam ne waa Inaakoa. Inaakoa Bokor Samba Dieye. Mhm. ay personnages yoo xam ne ci ceeb nañ leen xamee. dëgg la waaye boo fekkee téer jox ko marché ceeb. nga waaw nga gis na nag monsieur bu ko ombee yaa ko dara. waaw te monsieur dama yaakaar ni ak fi réew mi toll. oui askan wi di ko dundee. ñuy xaar président Macky Sall. ci ceeb bi dama yaakaar ne bu ko koy jox dañ koy jox koo xamante ni ñuy wax dëgg yàlla da ko mérité na. c' est pas trop tard de revenir dans les choses. que le président de la République Macky Sall na génn dans les vingt quatre heures ou bien dans les quarante huit heures. Mm. qui règle ce problème très rapidement. parce que demaguñu di séddale ceeb bi am <laughs> état ci boppam moo war a woo nos nationaux ne ñan ñoo mën a jëli ceeb bu fekkee ne suñu réserve ceeb jeex na day fekk nga dem waalo jënd ceebu waalo dem Casamance jënd ceebu Casamance dem Fuuta jënd ceebu Fuuta dem ci àll bi jënd fa dugub ak gerte daal di koy jël jox ko Sénégalais yi <laughs> mais ceeb ñu ngi dem ci koor. dëgg la munoo ceeb ndekki. ceeb añ ceeb guddi. bilaay monsieur le super wax nga wax joo xamante ni nii. képp kuy sénégalais wala nga sénégalaise wax dëgg yàlla li expert wax war nga ko déglu waaye monsieur l'expert lenn rek moo jaaxal ci wa da nga wax sànq benn tomb bu am solo ñii nga xamante ni ñii ñoo war a transporter ceeb bi way waaye damaa yaakaar ne bu armée bi fekkoon doon armée bi duñu ci jël dugal seen loxo wax dëgg yàlla transport ko duñu fay kenn. mais seen écoute les syndicats na sorti nee nañu mun nañ leen ba mun nañ ñu jël ceeb bi yóbbu ko gratuitement mais pourquoi joxuñu leen ko pourquoi joxuñu leen ko. kaay ma yóbbu la garage maa nga la déedéet kaay ma fay. ah wala waay waay nan xool li ñuy def. waay kan la ak kan kii gañ la marché. kii gañ la ce marché. c'est notre argent. absolument suñu xaalis la. absolument yow le président Macky Sall li nga war a jëf mooy jël ay sanctions yu sévères. Mhm. lii demagul tool yi commencé. dëgg la ñan ñoo war a séddu ak kan moo war a am ceeb. surtout population bi ñëpp ñi ko taxaw di leen déglu li leen dégloo mooy ñan ñoo ko war a am ak ñan ñoo ko warta am li ñuy bañ mooy dugg ci koñ jox ma sàmba tëb ma paate dem demba lii la ñuy bañ expert voilà bu fekkee dañu recensé 3000 personnes mhm. ci benn koñ ne 3000 personnes 100 personnes yooyu ñoo ko fa soxla boo joxee kenn saako ceeb solidarité bi am sama diggante yow caama dëgg ma xëy nga may xool te du ma jël sama ceeb jox la absolument danaa la may ceeb dëgg la yow ci la ma la may nga may keneen dëgg la kon séddale bi am si solidarité boobu entre le sénégalais citoyen lambda état bi ci boppam moo waroon fexe loolu te priorité bi du ay séddoo ceeb priorité bi c'est les Sénégalais qui restent chez eux. absolument mais pour ñu rester chez eux il faut nga toogloo leen ci transparence dëgg la transparence tey boo taalee France 24 tu parles que de ceeb. de ceeb bi laay au wax ay sénégalais am nañu résultat ci coronavirus bi. ñu nekk daan am nañu coow ca ceeb ba. waaw jërëjëf wax dëgg yàlla mbokk yi mi ngi noonu kooku ngeen gis mooy monsieur le waaye nag. dafa am leneen loo xam ne wax dëgg yàlla damaa bëgg ñu tëjee ko ndax temps bi dana xoj oui euh, euh, suñu président Youssou Ndour oui wax dëgg yàlla kooku nga xamante ni nii moo géré groupe Futurs Médias waaw dafa génnee slogan bu am solo boo xamante ni mën nañu wax daan corona waaw wax dëgg yàlla ñu lañ ci xaar en tant que nga nañ ko puuj paaj lan ne leen di puuj paaj ceeb bi comme que mënuñu ko séddoo ko puuj paaj waaw waaw xoolal gis nga monsieur eh eh non du waxuma leen ay caaxaan dama ne benn nen war a ñaari nen nga war a ko jox ñeenti nit ñu war koo baxal te koo ci compal du suur dañ koy mayonnaise ceeb bi bëriwul nee nañu ñii ñooy am du ñu am mais nañ ko puuj paaj ceeb liibaru ceeb boo ko puuj paajee mu dikkal la ñetti kilo daay puuju nañ ko puuj paaj ba mu tooy nañ ko puuj paaj buñ ko mënul séddale mu leer nañ ko puuj paaj nañ ko puuj paaj ba mu tooy nañ ko puuj paaj buñ ko mënul séddale ba ku nekk nañ ko puuj paaj léegi lii na ko puuj paaj ba mu leer na ko puuj paaj waaw buñ ko mënul séddale ba mu leer nañu ko puuj paaj. nañu ko puuj paaj ba mu leer nañu ko puuj paaj. jawal buñ ko mënul séddale ba mu leer nañu ko puuj paaj. di ko kaay nañu ko puuj paaj ba mu leer nañu ko puuj paaj. puuj paaj buñ ko mënul séddale ba mu leer nañu ko puuj paaj. nañu ko puuj paaj ba mu leer nañu ko puuj paaj. lay lay la buñ ko mënul séddale ba mu leer nañu ko puuj. nañu ko puuj paaj ba mu leer nañu ko puuj paaj. puuj ko buñ ko mënul séddale ba mu leer.